Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. الشيخ ما قال يجي العمجري nga xam tabaski moo xam kori ci bëccëg bépp ci jant fenk ba keroog muy sox boo fi waxee subhaanallahi wa bihamdihi 313 ñetti téeméer ak fukk ak ñett yéene ko mboolem ñuy faatu fu ñu mën dem seeni bàmmeel ko defee bàmmeel bu ne li àddina si yaatu yaatu néew bu ne bàmmeelam dañ ca dugal junney leer waaye yéen ko defee rek suñu borom daan la may nag booy faatu rek bala nga dugg si bàmmeel fekk junne leer yu la fii ne yoo xam ne mooy mooy mooy mooy yoolu li nga defoon loolu nag bisub ayit koy def am ci loolu